ke sa tension mais de naa 4 bien dormir. Attention. Ah, Un petit

tu vas bien Dame. Euh, oui je bien. Euh, dis-moi ana Moussa. Moussa oui, allez allo. Moussa. oui Moussa. Pas Euh, il faut que le dossier soit prêt aujourd'hui. non non moi, personnellement je vais passer chez le

Merci. Merci encore. C'est bon Et euh, pas. D'accord.

mooy ñoom kon ñoom seen grève ba léegi jeexagul ñoom lan la ñuy grève ah tamit. ok. grève bu dul jeex lu ñu métti kay nañ ko wax rek. ah mais moo leen métti ba tax ñu war a mën a grève. lan moo leen métti li leen métti la war a xool ba xam lan la. loo xamante ni c'est normal fekkee ni da ngay liggéey tamit te gisoo sa bopp c'est normal. Hmm. tey mënoo fi am croissant mu fi jëlal mburu bi nga lekk.

gis sa papa mi ci ah, la nekkul lekkam sax bëreetul ma ne damaa yaakaar ne problème bu bi da koo gën a aggravé sa papa ko kanam gii de ah Turki <laughs> jàmm man damaa defe ni woon man rek maa seetlu sa papa man mi nekk moom ah, man de jombi naa sa papa moom waxul wax ci mbiru papis bi daa fekkoon ci moom luy nelaw mu yeeku ndax lii du mbiru papis bi kese. waaw mais sama papa war naa mën a am problème boo xamante ne nii man du ko partage ak man ah bu fekkee yow da ko def dara na la ko wax wala man. man lu ma koy def man sa papa ñaata at may sëy moom mosuma kaa def lu ko naqari mosuma ko kaa gudd bu ñu tëddee fii toog naa laaj ko ni ko lan la lan la ba sonn nanguwumaa dégg su ma waxee ma wax ma leneen. doo wax dara dara la ma dul wax. te foo ko fekk di ko yëram ndax moom day xalaat ba nga xam ni kii xelam nekkul fii man mii tëdd ak moom ci lal bi nga xam ne façon neexal bu ne neexal naa ko façon wax bu ne wax naa ko faalewu ma. xëy na yow nga mën ci dara. est-ce que tamit xalaatoo ma dem wax ak moom. loolu ngay ah boo ko mënee kay moo ma gën a ah bu fekkee dafa am lu ko nakkari de. Hmm. na ko wax rek moo gën parce que mer ba pare bàyyi ko ci sa xol bii baaxul de. àdduna de amul solo. déedéet lu la metti wax doo ko mënta wax ak say njaboot koo koy waxal. yàlla baax na xaaral dem jéem a essayé xanaa dama yaakaar ni kii xalaatul naan day jéem a takk ñaareel ak affaire Effectivement, c'est un rappel et tout un chacun d'entre nous devrait se préparer afin de sécuriser sa famille au mieux. NCA Prévoyance, Soral et Elec est un contrat d'assurance vie qui permet de garantir à votre famille un capital en cas de décès ou d'invalidité totale. Une solution simple et accessible à tous. Souscrivez à partir de 2500 francs par an en cas de décès ou d'invalidité de l'assuré. NCA Vie verse aux ayants droit un capital compris entre 500 000 et 5 millions de francs CFA dans un délai de 7 jours. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 60 20 ou au 77 314 55 55. Visitez notre site www.nciaassurance avec s.sn. Avec NCA Prévoyance, assurez la sécurité financière de vos proches. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. proposé naa eh, bëgg naa xam ngeen wax ma quoi réellement li am lan la ak li xew lan la Asi. Ah, pas daal comme je t'ai dit dem si guddi rek Dieyna tam elle est assez majeure dafa bëgg dem bàyyi ko mu dem mu dund dundam rek moo gën à chaque fois ñuy wax ci la même chose depuis dem bataille. mami. waaw ni ma yow man jarul nga may xool wax naa la li ma xam démb ni nga ko yëgee man noonu laa ko yëgee aw ma lenn loo xamante ne mën naa ko ci teg yëguma ko lu ma si man fi mu toll nii police yi def seen enquête police yi def seen enquête parce que bëgg naa mu leer parce que yomb na trop quoi loolu parce ah, que li nga wax mu dëgg bu wax dofee nopp yi koy dégg nañ ni nitee waaw d'accord léegi yow doo ndékki. suur naa. ah kon da ngaa suuraat ndékki. mami yow après mun nga fekk biir d'accord soo paree li nga def lépp. boo demee bureau nga tëj sa ok raconte raconte rek. eh tekkal danga noppi yow. bëgg naa ñu waxtaan de. xam nga yow sama xarit nga te man ak yow am na complicité bu nekk suñu diggante dëgg mosoo dara nag te papa gis naa sa kanam temps yi changé na changer boo xamante ne nii ah dafa mel ni beneen kanam lañ ma tegal mais du sam papa papa bu fekkee dafa am looy nëbb loo xamante ne daf laa metti trop man sa doom laa partagé ko ak man amul dara loo xamante ne nii mënta defaraat la. na fi. togg balaa muy neex am saf ak yenn ñi koy gunge ci biir togg bi. dégg naa dëgg. fekk ni lu jar a wax lu jotul nag jarut wax papa ba man mii doo partager ak man hmm? du affaire partage suñ lay wax nopp ci boppam mu jar a te moy deg ndax olof def ni bop su naré am barke nopp yu deg ci sax su jaré wax dana ko wax su jarul wax na dum ko wax dama génnoon rek génn bu gàtt yow kañ nga daan dem te du tàggoo boobu yaa ngi nelaw bëgguma la woon yee loolu moo tax. waaw te doo bàyyi ba ma yeewu. dama demoon benn seetkat bi ma yebaloon. seetkat. kañ nga di seeti ay seetkat. affaire kumba bi rek. kumba mooy sama xolti. Ah, damaa xam ni kat naka la mën a nekk ci jàmm dara dalu ko. ak jamono bu yàqu bi xam nga man sama xel lu tax mu yàqu woon mooy lan Sénégal gi ñu dëkk bis doo ko toog ba bis ba dellu si te déggoo xale wala bëgg jël mu ñu oto yóbbu na ko ñii kenn dootu leen tegati bët ñii buñ leen di gisat du ñu indaale bakken mu nekk mbir mu doy waar kun nga mën a nekk dëkk bi hmm? sori ñu ne ci jàmm te dégg ñu ko wax la ñun loolu de yëpp ma loolu wax moom lu leer nañ la te kii dafa mën a seet te li ma wax kii li ma seetale ba wax man li ma wax lépp gëm naa ya ay waxam. yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar. yàlla bu yàlla tas yaakaar. Iya, iya. alhamdulilah baax na. ah <laughs> ah moom la gisul lu may def lu ma defal lu sam bopp. ah dégg naa la en tout cas. papa lii xaw ma ko woon ci yow te wax dëgg yàlla bu fekkee problème bu papis bi moo tax nga stressé wu ah wax dëgg yàlla su ma xalaatee ne yow yaa toogoon fii barki démb di ma di ma defal dama àdduna nii la te wax dëgg yàlla mënoon na fii gën a ñaaw bu dee loolu moom dalal la sa xel bu baax a baax te xam ne papis mu ci jàmm bu baax papa waaye. ci sama xel bu gàtt comme nii nga mel du problème mu Papis Rafi dalalal sa xel Papis ndogal la bu ci biir famille bi ñun ko war a mm-hmm. c'est vrai que yenn saa yi un penchant penchant ci moom mais taxul mu gunge ma ci xel ak xalaat mm-hmm. ndax mbiru gëm yàlla moom man mii seen borom kër mm-hmm. yaakaar naa ni bu maa leen ci mën a yóbbu jiitu leen ci mm-hmm. euh, yow li nga xam ci man keneen xam ko ci kër bi fii te keneen nit du ko xam borom kër gu nekk nag da nga am loo moom ci sa bopp loo xam ne nii doo def mel ni kaani xeeñ nga xam ne fu ne ko capp capp rek mu daal di commencé saf di dara dooru ndax man du ñor ma wax du ñorul ma wax c'est pas bon ci borom kër bu mel man cin boo koy lépp lu ci war yépp danga ko ciy def ba pare hmm. mu ko defee ca fay gaag lépp li ci war dara du ci manqué li nag su togg ñorul doo woote dëgg la am du dëgg dégg naa dëgg papa boo yekkee bay woote dafa fekk mu ñor dëgg la bàyyi leen ma nii rek ne vous inquiétez pas bu leen jël affaire bi yenu quoi je veux dire par là du yenu quoi man la de façon yàlla nekk jàmm rek papa parce que loo mënta partager ak man te man lépp ngay partager ak man xaw na ma jaaxal papa xanaa dangaa bëgg man ma meer maa ngi wax loo xam ne nii parce kenn du ko jiitu ci mbaram boo xamee di ma la wax dinga moytu mer ma ni paaka kenn du ko jiitu ci mbaram soo meree parce que nee naa tekk nanguwuma wax ak kenn am na lu tax bien sûr. dëgg la. lu tax loolu naa la sànq ne la ñoragul man lu ñor wax lu ñorul nag dégg sax këriñ ko ah kon baax na parce que man dama laa bëgg te sa hmm? ñoom dama bëgg nga dàq ñu weñ ñi. waaw d'accord tey weñ dafa bëri xam yow ko dégg nga. à Assurance Vie molen Don donne may série Le Secret